le choc des guerriers ce 31 décembre mbokk yi ñu ànd ci ak Ndiaye production lu xam ngeen Diop la borom sool daanaan la moom la Ndiaye production jël dax ñu koy boole ak caat ngéwél mbayaar bi di xale bu mën a bëre lool ñu boole ñaari yi ñaari jàmbaar ñaari ndaanaan ci bésu le 31 décembre ci arène nationale You know, Laayeen arrêté si kër gi ñu wax kii dëgg. Laayeen dañ ko war a wax dëgg. waaw Laayeen. waaw néew. waaw buñ ko buñ bu dee néew bu dee. waaw ba yow dàqee Laayeen. waaw terew ko si si si si kanam dàq gi. waaw loolu lay di si xar. am néew. waaw yow kii néew yi sax ñoo ko tane kii néew yi ñoo ko kii amul jom amul fulla ñàkk fayda. daaw imbécile. yow amoo benn jom. yow jëmbal jëmbal gi yëpp nekkoon sa ginnaaw nga nekk fi di xoole ba ñu daan la. ngay ñàkk ay yére yi def say ñàkk fayda yi ñu daj ci yow. taa sax am na ñoo xamante ne. xulle ba caatu ngéwal di la daan naan ay jëmbal jëmbal xaw naa leen a rey. dañoo a amoo fulla amoo fayda. ñàkk fayda bi ba nga eh, dee. waaye Cheikh wax na dëgg de. Ah. am na ñoo xamante bu ñu wéetee waaw dañuy xaru kii bàyyi ko fi moom ko Cheikh wóorul boo bàyyi ko fi wóorul ñàkk jom amoo ras amoo gàcce ah bëgg wan ba dee rak damay entraîné damay foog may lekk damay entraîné lu waaye wax lu dugg si ci impôt yi dem yow moom buñ ko daanoon sax garaal mais dañ la dëngoo ba ngay bëgg a dee ñu daan la eh, ay ah, bàyyi saroy lañ mbi si cim sa góor jàkkaarloo di la dóor ba pare di la daan ma dóolee dóor naa ka daf maa dóor laa saf rek waaye dóor sa yow yow vidéo yëpp ñu fi jom dóoroo kenn da ngaa daw mu dàq ji la jàpp la daan la daan bu mag. dama doole dëbb sax dama daaw xaa xaa xaama xaama xaama bëy moo kon lan ngay taxaw naan ay mbër nga da ngay mbër mbër lu la ma tax nga ma da ngay mbër mbër lu maa fi mujjee daw ci mbëli dama dama xool dama xool bantam ba ba daw jaamur yi ta daw moo fi bees daw fi ñàkk fayda waaw boo jëw jël na ko te da koy daan bu sama yàlla combat bi taxan boo jëw jël na caat nga da koy daan jël bu lay eh, yëg nañ ko yëg nañ ko da ngay ne yow moo wax nga ko. bàyyi ko rek yow duulkat nga. boo yow wax nañu lépp duulkat warul bëre. borom soow mi wax nañu lépp. yow da baax rek. combat bi le 31 décembre la. gënoon ñoo xam loolu gënoon ñoo xam ko Fallou Ndiaye ko tëgg. xam nañ ko. le 31 décembre la. jour fête bi la fête. waaw ah yëg nañ ko. dañ koy daan kooku moom xoolal. da koy jël arène nationale loolu yëpp xam nañ ko. Katalina waa SSA yëg nañ ko. mooy sponsor bi ah baax rek. boo Diop da koy daan suñu 31 neex bu ko defee lépp lu ñu metti woon ci àdduna mu fajal ñu ko. waaw Boy Diop deux moo fi ne. Boy Diop ñun moom rek la ñuy topp ah, man tamit fi. aywa ah, Boy Diop kase. ak ñaanku ak damay eh, eh, waxee ñaanku kase ñu. yow lañ daj ci yow boobu ba léegi. ah nañ waay. ay jaw kii la caatu ngéwél nga xam ne dafa rëy laame fii lay toog naa dama faa. caatu ngéwél su lay laame ñu wax gën a lay laame fem lay yoon. eh depuis amoo loo wax fi la dugg yëmbal daan fi six personnes ak yow muy sept. ci lay yem ci lay yem ci ma mii. lay ah. alerté ah, kii kii alerté ci man lay yem de. yow la dama wax arrêté bu sawee yàlla. yow yaa waxoon yaa ko arrêté yow yaa waxoon du jox jot ak ci boo Diop. lan laa waxoon yow lan nga waxoon yow yaa ko te nga xam doo mbër mi boo jëm te mooy mbër. man tey mbër laa boo jëm moo fi ne. mbër laa. booy joob kese. ak ñaanku ak eh. eh booy. waxatal la xaaral booy kese. ay booy. borom soow kese. ay booy. booy joob kese. ay booy. borom soow mi kese. ay ñaanku nan dem. sax nga fay waxee ñaanku. ndax ko fayda bi bëgg def sa kanam bon gii. boo xaw boo xaw mu mel ni. tuñ. sa tur yi waaye tuun yaay lay xuul kon léegi ñàkk fayda naa li amul saf safu la ñu kay da ngeen di yaakaar kay boo jëm dinaa ne ko booy bi doole mi dafa saf de ay ay borom sam jëm doo si nekk borom sam man ma nekk borom nettali bi loolu léegi la damaa daal la jeex na. bàyyi bàyyi jëli tarki naa naka mu gaañ lépp jaam ful na. waaye maa jóg dëw bi mujj naa taxaw Fallou Ndiaye taxawal na ko pour le 31 décembre incha allah. lay noonu la demee wax. loolu daal loolu daal xam naa ne boo ko. yóob yëpp nañu ci bàyyi ko. yaa ngi dem. sa daal lay. Ah. da ci finesse mu taw lax ay pitin de. waaw na nga def. waaw père kii bu amoon njëriñ nañ ko def feeraay. ah moo taxit wax na wax mbër yàgg nga kaa wax de waaw. ziar naa ma lii feeraay waaw mbër gàlle. a ba yaa ngi am jàmm caat. maa am jàmm kay. naka forme yi ah, ah ziar naa la. ñu ngi lay defee. andi andi wa am. Eh, eh, eh, dëkkam. <laughs> ñu ñaan ñëpp la xëcc te yow rek la xëcc. imbécile baa ngi si dara de. magal nga wax de am na doole di. doole daal moom macha allah. góorgóorlu rek tànk yi ñu ne wallahi roi des arènes sax dina dina la wuy si ñu ngi ci yaw waaw ñu ngi ñaan lu ne ñu ngi koy def yow santal yàlla rek ta nga entraîné toog <laughs> waaw waaw mais dama leen doon wax ne sama combat taxaw na tamit si kan Fallou Ndiaye li mu waxoon mu jën a kaa def mu jën a taxawal maa Diop do pour le 31 décembre laa ilaha illallah incha allah alhamdulilahi rabbil laa lu ma la waxoon yàlla ñëw na def na ko hmm, def na ko euh, nee naa la boo jógee waat eh. si combat bi di am yeneen di combat mbër dey pare. pare gu ñu gàllaaj gi ñu ma jox na ma boo ko sangoo tout le temps da ngay da ngay bëri année balance moom doo xam sax ku koy def. nii la ñu ko Moustapha Diaw nii la ñu ko Moustapha Diaw nii la waaw. Diop doo nag ak Ndiaye doo ci am. wallaay waaw na leen doon def yëmbal. Diop doo mooy booy yëmbal bi. waaw boo ba nga jógee sa njànku mooy ñooñ septième combat Diop doo maasaale ko mu dem waaw. <laughs> man daal li ma la sant mooy daan nekk ci yoon yaa ngi si yoon waa waaw waaw bul teggi kenn kuñ la jox jëlal waa mu ngi noonu yaa man yaa la gën a féete xale yaa dàq bàkku yaa dàq wax yaa dàq bëri wallaahi dëgg la la wax te ca lay mag di na la wax sagam jël nga yëpp jox ñu doo ko rëccu lii suuf mukk waaw ca lay mag di na la wax yow yow góorgóorlu rek kaay ma xam xaaral eh ana seulement bi ma la jox ana li moon paranku yi Ah, ah jàpp ko rek fi ma ko wékkoon muy foofu ah, ah. loolu tànk tànk yaa ngi fay gis da ngay daan. mais père ah ancien mbër <laughs> la jox rek jël. man de <laughs> kii dina ma rey. bi mu sumee lii oto la oom lañ ci teg. asma ji la. yaa ngi jëf kii asma ji la. fa jógee. waaw man de instant bii sama le 31 am ay affaire yoo xam ne faa nga si lamb ji wis ak yooyu suy. eh ba yaa ngi sacrifié. sacrifié bu ren yow doomu yëmbal. yëf fu nga ko yoof mais nag am na boo xam si buntu kër kër mbër mi wax. allahu akbar ba jona yaa ngi ne il faut le mu ne ko ne wax mu def ko kii. mais ñànku ne ëf. ñànku léegi da ngaa màgg ragal wala yow ba ngay nekk xale kenn bu loon fi non bokkul làmb léegi moo doy waar lama léegi làmb léegi da mbël day am combat bàyyeeg may léegi ñoo teg seen bakkan léegi ñu wala wis buntu ko booy bi ah waaye loolu dara ki risque rien ki n'aura rien boo risqué wul nag moom munoo gañe de da ngay risqué ñu gañe waaw waaw moo koy fis pardon pardon waaw ay jóg waaye nu mu demee nii. ci xool di xool day newoo day dañu doon naan poisson boo nee kii poisson bi dañu doon naan ñi ñi ay daw naa ah, lépp la ñuy def. ëkk ñi ko bëgg leen. Ah, poisson bi mais nii de. su ma génnee nga xool ama képp bi noonu ñoom. na yàlla ndaayaan ndaayaan ñoo ko la sànni. mais daa dafa def quoi. moo moo la xaaj. daa la war a gën a xaaj moom. xaaj kii Ndaya Ndaya ñu war a xaaj. Ndaya nii. de kamoo jàmm naa am waaw soxna. am na ku doon naan boo. man mii maa ko doon naan. yéete si kaw barke ma li li xaalis doyul mais ananas la bi ki ananas bi la de bi moo garaaw yow yaa koy naan waaw la yaa ko tàmbali ko naan mais kii moo ko moom laa desal bi la naan orange bi eh, ah, moom moom bu doon bi la ma xam ne moom la mais ananas bi yow yaa koy naan yow daa mel dañ ci bëggoon na yaa koy naan mais vidéo bi yow léegi moom dafa mën naan ko mais dafa naan ko daa amul xew déglu leen ah bagages yi dañ koy yóbbu yóbbu sotti ko foofu. bagages yaa ngi nii sax yu ngeen di suul ak yu ngeen di kii quoi. dañ koy wis suy ko foofu yooyu bagages yi foofu. fan yii of. gis nga ni muy fuuree paa bi nee na ma bi boo ko suyee mooy mbër mi dee na. oui bu dul gaay saay. waaw eh. ah. Eh. Eh. da ngaa ragal yow da ngaa ragal da ngaa ragal. ah jaatu njëriñ buntu këram waaw. ah saa yi ay risque la ne nag. yow Thiam Thiam Ngéwél moo la waxoon biir néegam sax da war a dem ndax ma yow lu ñu dund xam nga. mbër bëgg naa la waaye tamit loolu tamit loolu risque la de. mënoo la. non ma la gën a du ba ñaale yow la yow la ñuy toog. du du sama xaar léeg-léeg lu lu lu seko ñuy yox. da ngeen di yox booy ma booy ci ndey ci bopp. moo daan par na pour dem de yéen ñaar ñii. kii wiruñ Diop maa yow ñooy wax mais mbër soo ànd ak moom soo ànd ak moom waaw da ngay xotteeku da ngay ñeme da ngay ñeme woon yéen ñaar ba ngeen nekkee xale def ngeen lu nekk si dëgg bi nag mais léegi da ngeen mag commencé tapet la pourquoi loolu tapetuñu waaye yéen des fois da ngeen jàpp kii ab dof bu ko yow wóor yow li laa dañ maa ma ne yéen ay copain mbër la waaw ay copain mais xàmmee wuñu la jéem jéem mooy neex de <laughs> du ma leen rek. ah nag gars yi kay laa expliqué rek. yow kay xàmme na gars yi boo leen ragalee xam nga la ndaw mi. awo ñaari ñaari nerf laay wut boole ko moom ñu ànd. awo awo nañ dem nañ dem nañ dem eh, yóbbu. bii yow yaa ko yóbbu yow bii yaa ko yóbbu bii bii moom ah da ngay mel ni mënuloo mu yor kii rek di wër si koñ bi di wisu rek. Hmm. waaw xam nga yow da ngay defalu da ngay defalu rek di wisaale. waaw ni kii waale noonu foofu. mais mais mais dañ ko profité que ma dóol fóot fa la génn dem du fa yàgg. doo fa yàgg non non mun na fa bañ a def sax cinq minutes. tëj ba. non waaw mais. waaw ah, ah. léegi taxaw leen. mais waaw ah. yow bii waaw. looy tuddee Mawlo ak sa adversaire wu ko tudd. waaw dama ko tudd dama ko dama ko war a géem sax dama ko war a ah. duma dama ko war a daan Mawlo moom. waaw war a ñëw bii. waaw yow yaay dem ba buntu néegu caatu ngéwél. waaw dégg nga yaa ngi dégg yaa ngi dégg. yaa yokk affaire yi nag. déglu ma tuuti gën a waxoon nga buntu néeg. ay étrangers yu ñuy teg la da ngay jël sa pot lu. Ah. dugg si kër gi mel ni taalibe. waa wis ko si buntu kër gi. ak si biir ak si bunu néegu caatu ñëwal yow moom bande nga bu la neexee ñëw jubali si biir néegu bu si sotti yow moom ah, ragaloo ah, ah. mais mais moom ci buntu bi laa wis rek jeex na bu waxaat bu waxaat ci buntu bi laa wis bu waxaat bu waxaat Diop téye sa téléphone de waaw lu mën a xewar man instant chaque instant man lañ la woo ni la booy non booy saa bu yow ne naa ma booy wis nañ ko man kay xam naa loolu lañ may wooyee booy wis nañ ko de laa wax ne jàpp nañ booy de <laughs> pour AK waaw loolu tamit mën a nekk de mais kenn du leen jàpp am na am na ay saar yu ma leen di wax bu leen ko teree. bu ah. leen dugg ba ci biir kër gi jël bagage bu dem sax kenn du leen. jëm ne ko tali te dem dóor ko la benn comme man maay bëri man maay bëri man maay bëri. galaaw galaaw maa ngi bëri maa jox jox ñu paas. maay bëri paas. waaw jox leen paas. Eh, oh. eh, maa maa maay chef bi nag. non yaay chef bi xaaral ma jox leen paas. indi indi indi benn bi. non bi nga bëgg wala bu ndaw. bari sa yow dama dama lay nangu li bi jox kii la dolli ko de ah, ah, sama xaalis. léegi am mën na pas aller le tout mun yof waaw yow daa lu ñu fajoo bu ñu gaañoo da ab bu ne boo leen gaañoo boo leen gaañoo Fallou Ndiaye jël leen en ne ay sa ay vagalan ay vagalan yow dem leen la leen tabb balaa deux heures balaa deux heures bëgg naa ñu ñëw xoolal fët fët ma duma ko acca daan ko acca Fire! Fire! تعال تعال تعال تعال تعال تعال don't know her. Déedéet woon na. bu ñu wér sama ci kër gi. ah ah duul duul bi seen fii bi seen fii. waaw waaw waaw. mu ne ma mu ne ma aja aja ci kaw adduwaat aja ci kaw adduwaat bàyyi fay ci kaw adduwaat dañuy jaar. waaw dugal ci kaw adduwaat. amul gerte waaw. yow ah. mais da ngay wax da ngay sàcc di wax. yow dina ko suñu waayoo. ñu ngi fii fii la ñu ngi nii. yow wis nañ ko. wuy ma ah, xorom gas nañ fi am nañ jënd booy ay jaasi. jaasi pour lan xaalis père gas nañ fii de. fii yëpp xoolal fii. gas nañ fii rabo jooy na kii daanu na. billahi caa fi ngi wal daanu na kii daanu na dañ koy daan waay daaneelu ko waay yow tamit. loolu daaneelu ko. fay saw génneel génneel génneel naa génneel naa ne. waaw xanaa waa koñ bi tamit ñoom ah. lan la ñuy xullee ñu la jógee ba yëmbal kenn kenn kenn moom moom la def à lettre. na ñu ngi fi sotti gaal ak mani ñoom ni ñu ñëwee fii ñun noonu la ñuy demee yëmbal te dinañ fa suti man maa la wax loolu kan mooy dem ñun def kalan na xa topp wax tàkk ba ji xam ko gën a wala doon ab doo daal man mi yeex yëmbal suti gaal ak ñu dem doo dem wax leen lu ma nan dem eh, nañ toog fii mën nañoo ñëwaat ba doo ma rindi sama daamine bii lii lamba rek a man maa ngi si biir xaali xaali nee nga dem moo yëmbal toogal rek man damay dem yëmbal damay dem yëmbal Diop Diop Diop doo gënuñu ndey ak baay caatu géwél mii moo ñu gënal lu nu mën a am lu nu mën a am moo ñu ko gënal su ma nalee dinañ fa suti rek dinañ fa suti waaw ndaa yaan jànku mëndum bi li ñu def fii mën nañ ko yëmbal te nañ fa dem dégg nga li ma la xaali làmb defa sensible dama ne la ñoom ñooñu gën añu ñoo xam xam nga xam nañu bu baax waaw léegi nag lenn la ñuy def réunion rek lañ mën a def bu ñu defee réunion ñu baare koñ bi jox booy war gaa suukar 31 ah. décembre yàggatul lambi capital la nañu ko jël nan lamba yi nan ko def suñu lamba dikkam jarul découragé lii du lii daanul mbër boo waxee day ma ne dama découragé découragé wu ma de découragé wu ma waaw lii daanul mbër ay lii dafa óor dara amu si jógal xanaa yow gëmatoo sa bopp jógal yow jom dafa xëy nga gont ñu dem kay ka di bu fi dugg di toogal fii comme yow lu mbër mi encaissé nga encaissé ko toogal fii man nga fee saw sawal mu toj bu ma bàkkaarloo bu ma bàkkaarloo lan la xoola muy duggal ci kër gi